waaw sama na ne tuuti tey moom dama fen da nga bëgg a toog daal dama wéttal wéttal sa yaay nii daal. waaw comme dama fen kay damaa toog fii rek man xaaral wéttali sama yaay booy. ah loolu moom baax na moom kontaan naa ci moom tey moom sama xol sedd na ko ah? waxuma loolu sax sama dëkkandoor bi Astou Diop moom daal sa yu ñëwee fii may ma xorom may ma xorom may ma xorom te day duul day gat sama jëkkër ji lay xoolaale moom waa koñ bi ñëpp nee nañ ni que moom doxati ko jëkkër jàmbur la. am na jëkkër de mais yemul si jëkkëram day cagatu di farantu ni kii mu ñàkk jom bu ñëwee firi na ma may ma xorom may ma xorom te te ñaanul benn xorom sama jëkkër lay xool waaye sama jëkkër ji dina ko bàyyi dégg naa ñu ne am na doom joo xam ne woyu la sàcc la bandi la nankatu sàngara tokkatu yàmbaa la rey nañ ko fi. ah yaay yaay kooku dafa bon kooku dafa réew bi la yaay kooku dafa réew. waaye bàyyi ko rek du day ñemee góor caga bëgg góor indi trois rek même xorom même xorom même xorom di xolaale sama jëkkër loolu dina ko fi bàyyi fii moom bu fi ñëwatee moom dina xam ne man ak moom la. waaw waa ji bon naka la yaa ngi toog ani sa yaay wax ko mu ñoom ñoom xorom waay. yaay booy. naam. tata studio bi nga waxoon ne caga la. <laughs> te bu ñëwee fii di la ñaan xorom day duul xoolu ko ñaan xorom sama papa lay xool te nee nga sax eh, dafa am doom boo xam ne naan katu sàngara la wéyu la la bat la sàcc la. <laughs> nee nga moom day téye jëkkër jàmbur yi di leen di leen di leen doxaan rek moom nee du yow nga ne nga sax moom moom nekkul ñëpp xam na ne cagal la na nga may ko xorom mi nii taxaw laa <laughs> ilaaha illallah yow ndey maram yow yaa wax lii yëpp ci xale bi ndey maram yow yow ndey maram man ngay wax tegal teg yow di ma jëw yow laay lak yow bay génn fi yow may rey sa yow <laughs> ay ndey at suñu baal ma yow <laughs> damaa créé YouTube pour yow mën nga tuddee Waaju Bon ci YouTube bu fekkee da nga see bëgg abonné nga dugg léegi ci page TikTok bi nga cliqué ci petite case bi di dem directement sama page YouTube nga abonné wu foofu noonu pour gis vidéo yëpp wala soit nga dugg ci barre de recherche YouTube bi nga bind Waaju Bon du nga dugg sama chaîne nga vérifié samay vidéo nga seetaan ko abonné wu pour vidéo yi gën a neex gën a turum tàll